dal leen ak jàmm ci xibaar yu gën fës ci bis bi dañu koy doori rek ak eh, koor bi nga xamante ni dañ koo daal di for foofee ca place bu Mali bu bu Golfe Sud foofu nag ab xale bu góor bu nga xamante ni am na lu toll ci ñaar fukki at ak ñett moom lañ daal di for foofu xale bu góor boobu nag gannaaw recherche yi nga xamante ni sax takk déri daal dañ koy def moom ab kala la bu nga xamante ni daal bi su tabaski daal di réer seen waa kër ndax nag nee bi nga xamante ni daal ci la fees xaram ba pare ci la demoon ca géej boobe waaye nag boobee sax lañ ko daal di gëj gis gannaaw nag ay wóor yu bëri bëri yu nga xamante ni amaloon nañ ko moom mi am néewam dañ ko daal di for ca place boobee nekk ci diwaanu golfe sud waaye nag itam dañ ko fekk rek ñu daal di koy lëmas ci ab mbuus bu ñuul kuku waaye nag donte nag do fekkuñu ci yaramam ay traces yu nga xamante ni daal mën na ni kat moom mi dañ ko daal mbaa violenté ko moom mi daal jamono bi génn àddinaam nekk na lu nga xamante ni ëlëb na loolu as xelu askan wa nga xamante ni ñoom ñooy yeewoo foofee ca Golf Sud lu ci mën am itam daal moom néewam daal nañ koy déposé foofee ci hôpital Fann ngir amal li nga xamante ni moom moo di autopsie bi ngir mën xam itam dëgg-dëgg ana lan moo faat bakkanu karaloor bii ni diw yoogi turu M Meng dañuy daal di wax ci mbirum ñaar fukki xale yu jigéen ak ñeent yi nga xamante ni ñoom ñëpp foofee ci diwaanu Nigéria la ñu jige woon ñu andi leen fii ci réew mi ñoom nag nekk ay xale yu nga xamante ni daal ñu bëri ñoom fukki at ak benn lañu am ñeneen itam daal di am fukki at ak ñett ñoom nag gannaaw ay enquêtes yu nga xamante ni daal suñu takk der def nañ ko xale yooyu dañ leen doon indi fii nii ngir enlever leen andi leen fii nii ngir di leen jaayloo seen bopp. loolee nag biñ ko laajee ka nga xamante ni moom moo di l'ambassadeur par intérim du Nigéria au Sénégal muy docteur Saliou Aboubacar li mu xam ne rek moom moo di xale yi jigéen yooyu daal bëriwaa nañu leen di jaaree ca diwaanu foofee ca Cotonou nekk ci diwaanu um, Bénin ak Mali jaare leen fi nga xamante ni moom moo di frontière bu Sénégal ngir mën leen a jaayloo seen bopp gannaaw nag investigation yooyu nga xamante ni daal yoon def na ko waral ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ñaar fukki xale ak ñeent yooyu yëpp dañu ne daal di delloo foofee ci seen dëkk waaye itam sax ña nga xamante ni ñoom ñoo leen fi itam daal di ne mër ni mëntaan daal di réer kenn gisu leen fenn lu ci mënti am daal xale yooyee ñu bëri ñoom daal bu ñu leen fi andee dañuy gis ni que dañuy jaay seen bopp loolee saa itam lañ nemmeeku ci yenn ki dëkk yu mel ni Dakar ak Thiès ni ay ñàkk yu nga xamante ni daal jamono bii te dañ fee daal di fees dell te ñu bëri ñoom nag jóge diggante Bénin ak Nigéria yi ci aju ngir ñëw fii nii di amal métier jaay seen bopp loolee nag xale yu jigéen yooyee donte sax amuñu li nga xamante ni moom moo di ay carnet de santé jamono bii nag ñu ngi lëmbee li nga xamante ni moom moo di yenn dëkk yu gën a fës ci Sénégal diggante Ndakaaru ak Keeskaay ngir wone li nga xamante ni daal moom moo di seenu liggéey fësal ko di seen bopp ñu wax itam ci kidnapping bi nga xamante ni xale bu góor bi nga xamante ni moom daal am na lu toll ci fukki at ak juróom moom nag dañ ko daal di kidnappé loole nag ñi ko defoon moo di ay sàmmkat yu nga xamante ni daal dañoo nekkoon ci àllub village bu nga xamante ni dafa nekk ci commune bu Taïba Moustapha nekk nag arrondissement bu Ndindi ñooñee nag ñoom ñoo jàppoon xale bu góor boobee ne daal di koy yee ba mu dëgër. nekk fa ak ñoom ci seen activité bi nga xamante ni moom moo di wàllum sàmm xale bu góor bi nag gannaaw sax ba mu rëccee ñooñee di sa sàmmkat yooyu da daal di koy jàppoon otage yàlla daal di daw ñibbisi ci ay mbokkam waaye itam nag noonee sax lañ ko yëgalee ñi nga xamante ni ñoom ñoo di gendarme bu brigade proximité bu ndindi gendarme yooyu itam sax dem bu dem foofee bërëb boobee nga xamante ni fa la ñu ko sàcc nekkoon waral nag sax mu andi ay altercation ba kenn ki sàmmkat yooyee daal di am ay gaañu gaañu yu metti ñoom ñëpp nag ñu daal di leen di jël andi leen ci kanamu enquêteurs yi waaye itam sax ñoom ñooñee li ñu xam ne moom moo di enlevé wuñu xale boobee waaye nag koo daal di foo rek ci digg àll bi waraloon rek ñu teg ko ba ñu xam dëgg-dëgg ana fan la xale boobu bàyyee ko lu ci mënti am daal ñoom ñii nii jamono bi dañ leen daal di placé en garde à vue ngir yoon mën a wóoye li nga xamante ni moom moo di enquête ngir xam dëgg-dëgg ana lan moo sababoon enlèvement xale bu góor boobee nga xamante ni amul lu dul fukki ñaar fukki at ak juróom. ci diwaanu Parcelles Assainies foofu nag sax ab nit ku nga xamante ni daal am na lu toll ci ñeent fukki at moom moomee lañu daldi agressé mu jaaree fa sax ñàkk bakkanam moom mii nag donte sax ñàkk na bakkanam ñu ngi ñi xamante ni que dafa doon jéem a sax xeex ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon agressé waaye moom nag jot na encaissé ay paaka yu bëree bëri yu nga xamante ni moom moom moomee Samba Boy ñoo ko doon jam moom nag sax kenn ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo def jëf ju ñaaw joojee ne dañ ko daal di teg loxo foofee ci diwaanu Grand yoof gannaaw nag patrouille bu nga xamante ni police mu ngi ko doon amal foofee ngir mën a jàpp ay nit yu nga xamante ni daal dañ leen a maanaam xaw a suspecté ci yenn def ñaawteef li firndeel police ni que nag moom moomu ñu jàpp moom moo daal di eh, faat bakkanu kookee ne daal di génn àdduna moo di moom dañoo fekk ci moom ab paaka bu nga xamante ni daal dafa takkoon lii di deret ba mu fees dell moom nag mi nga xamante ni sax moom moo def jëf joojee ne gannaaw biñ ko jébbalee ñi nga xamante ni ñoom ñoo di enquêteurs yi daal daal di nay wax ni que moom moo daal di faat bakkanu waa jooje ñu dem ci Parcelles Assainies unité set nekk foofee ci diwaanu ndakaaru foofu nag waa ji di wéy ki turu Bey Diop di ab maçon bu nga xamante ni moom am na lu toll ci ñeent fukki at ak juróom moom nag li nga koy toppee moom moo di sàkku ab doomam bu jigéen bu nga xamante ni amul lu dul fukki at ak juróom moom nag daal na koy sàkku ay yoon yu bëree bëri doom jóge sax di wéy ki Diop moom mii di nag daanaka sax bokkoon na ci la nga xamante ni daal xawoon na ko déranger moo di ni mu nemmeekoo ni doomam bu jigéen boobee dafa doon génn am ñi mu doon jëflanteel wala sax mu daal di àgg ci kawam. soxnaam si mu tàggaloon sax nekk yaayu xale bu jigéen boobee itam daal nekk foofe ci diwaanu Toubacouta ngir ay problème mu liggéey moo taxoon mu daal di nekk foofu sax waaye kookee sax dafa ñëw ngir daal di jël si kii di doom bu jigéen loolee nag bi mu ñëwee des si doom bu jigéen sax loolu moo waral sax mbir mi daal di feeñ lu ci mënti am daal moom xale bu jigéen bi daal di wax lépp ka nga xamante ni moom moo di yaayam. mbir mi nag daal di àgg rek foofee ca police bu Parcelles Assainies unité 22 ba ba mbir mi nag daal di àgg ci ay loxo yoon moom mii di boobee sax ca mu gënt ga li mu wax rek moom moo di xale bu jigéen bi daal dañ koo daal di ruux rek ba mu bëgg jaxasee yaayam ak pa am gannaaw nag ba nga xamante ni ñoom ñaar dañoo daal di divorcé lu ci mënti am daal moom maçon bi jamono bii parlancé nañ ko en garde à vue ngir yeggali li nga xamante ni moom moo di enquête yi. ku ne gisoon na fan yii nii rappeur boobee di Dof ndey moom nag ñu wane woon ko sax ci ab vidéo bu nga xamante ni dafa yoroon paaka daal di koy jubal ci ab nit ko nga xamante ni daal jàpp na ni kookee moom moo daal di toj pare otoom moom Dof Ndeye nag ñu wane ko ci ay vidéo yi nga xamante ni viral lool ci réseaux sociaux yi moom nag Dof ndey daal nañ koy jàpp foofee ci diwaanu Ngéxoox ñi ko teg loxo nag moom moo di gendarmerie gannaaw nag ay information yu nga xamante ni jot nañ ko moom mii di Dof Ndeye nag sax nekkoon ci ab concert bu nga xam xamante ni daal foofee la ko doon amale waaye itam sax foofee lañ ko daal di boole moom sax daanaka kookee nga xamante ni daal moom moom la jamoon da da ko porté plainte wala sax moom Dof Ndeye daanaka lu ñaari fan a ngi nii ñu ngi ko doon wër ngir xam ana dëgg-dëgg fan la daal di nekk moom Dof Ndeye nag jamono bii nii dafa doon nag dafa demoon làqatu ji foofee ci diwaanu ngi xoox jamono bii nag dañ ko daal di teg loxo jébbal ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di gendarme yi. gannaaw nag coowal coronavirus bi nga xamante ni ñu ngi koy andiwaat fii nii ci diwaanu Sénégal ki nga xamante ni nag di Madiambal Diagne di ab journaliste nag moom li mu jàpp moom moo di. Ousmane sonk daal dafa bëgg daal làqatu ci ginnaaw coronavirus bii nii ngir bañ a amal lu nga xamante ni moom moo di déclaration bu politique générale am moom mii di Ousmane Sonko nag Madiambal Diagne jàpp ni daal jamono bi dafa maîtriser wul sax li nga xamante ni moom la yor moo tax mu bëgg wut ay porox ndoll waaye itam lal lal ay pexe ngir mën a bañ a def li nga xamante ni moom moo di déclaration boobee lu ci mën daal itam coronavirus boobee jamono bi ñu bëri nag jàpp ni que dafa ñëwaat fii ci diwaanu Sénégal ñu bari sax itam dem bay wax ni nga sax ujaaj yi nga xamante ni ñoo demoon ca Màkka ñoom ñoo ko àndaale ñu bëri ci ñoom nag ñu daal di leen testé positif waral sax jëwriñ gi nga xamante ni moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram bi dem bay naan sax est itam Sénégal du ñu daal di tere li nga xamante ni moom moo di événement nganale yi bu ko defee nag nganale Màkka yooyee sax jàpp nañ ni que ci ujaaj yi nga xamante ni ñoom ñoo jóge Màkka ñu bëri ci ñoom nag dañoo daal di feebar jamono bi te loolu nag bu ñu moytuwul mën na dem ba propagé wu fépp ci biir diwaanu Sénégal démb nag ci altine gi sax eh, ñi nga xamante ni sax ñoom ñooy. Eh, waa ministère de la santé ci 124 test maanaam eh, téeméeri test ak ñaar fukk yi nga xam te daal def nañ ko juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett yëpp nag dañu ne daal di déclaré positif eh, ci virus bi nga xamante ni moom moo di SARS Covid 2 ak itam juróom-benn fukk ak juróom-benn yi nga xamante ne daal. ñoom itam jamono bi daal ñu ngi leen di siiw bu baax a baax ngir xool ba xam amuñu li nga xamante ni moom moo di jàngoro boobee ne lu ci mën tam daal jamono bi Sénégal ñu bëri commencé amaat tiitaange sax dem bay naan coronavirus bi ba xam du déclenché waat ngir mën a dakkal yenn dem yi ak ak dikk yi waaye itam sax ngir mën a tere sénégalais yi ñuy def yenn liggéey yu nga xamante ni moom mooy di may koppar waaye itam moom mooy suqali suñu koom. dañ koy tëjee foofee ca diwaanu Kédougou wax nag opération bi nga xamante ni eh, ñii di takk der yi def nañ ko ba daal di démantelé daal benn site clandestin bu nga xamante ni daal wàllum or lañ doon gas ak yi ci aju loole nag mu ngi am foofee ca diwaanu Kédougou loole sax moo waral direction des relation publique des armées sénégalais di DIRPA daan ne xam ne daal teg nañ loxo lu ëpp euh, juróom fukki ak juróom-ñett yi nga xamante ni daal ñaar fukk ak ñett yëpp dañ ngeen a placé en garde à vue pour exploitation illégale d'or ñoom nag sax du guléet ñuy leen di jàppee ci loolu ndax foofee nekk na ay bërëb yu nga xamante ni yenn saa ay nit dañuy jugee ci yenn ci réew yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu wër ngir daal di def seen ay camp foofee nag am jàpp nañ sax ay jigéen ñu nga xamante ni dañ ñoo ñëwoon foofu ngir liggéey ak ay xale waaye ñoo ngi nag dañu leen a mujjee waat ñu daal dem ñibbi seen kër bokkul itam ci liñ leen ci ci biñ leen jàppee ñu fekk ci ñoom lépp fukki moto pompe ak juróom waaye itam fekk ñoom ay groupe électrogène ak itam ñaar fukki moto ak juróom-ñett waaye itam fanweer ak juróom-ñett consac concasseur yi nga xamante ni daal yooyu yëpp daal ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy Samba Boy ñoom ñoo ko yoroon lu ci mënti am daal jamono bii bërëb yooyee itam daal nañ koy bu baax a baax jamono bii nag armée bu Sénégal wala itam ñi nga xamante ni daal ñoom ñooy saytu kaaraange réew mi lenn rek moo leen tax a jóg daal mooy fexe ba aar dëkk bi waaye itam aar yenn gox yi nga xamante ni daal jàpp nañ ni que ay nit dañ fa ñëw di fa gas yenn ci ay ressources te amuñu ci benn yoon ndigal mbokk yi mu ngi noonu lii moo ko doon fas teg ci xibaar yi di leen jox di gis ba jàmm jërë ngeen jëf ci ànd bi.